ah loolu nag mënuma ci wax parce que xaw ma ndax ni ñi ñëw nañu wala ñëwuñu maa ngi door a egsi dama egsi rek dugg def sama devoir citoyen mais tey bés la boo xam ne citoyen yëpp euh, comme ni ko sunu sattu réew waxee war nañu ñëw wax seen xalaat wax seen xalaat mooy joxe seen carte euh, wax ne man def naa sama devoir citoyen ak bu lu munti nekk rek ñu def ko ci jàmm ak salaam bon ku ci nekk dellu sa kër ci jàmm ak salaam Euh, parce que loolu lañu xamee sunu réew ci fii ak ci biti man nekkoon naa ci biti loolu lañu xamee woon sunu réew donc loolu nañu fexe ba sax ci loolu mooy ñu ñëw ci jàmm voté daal di ñibbi euh, te nekk benn daal euh, bokk ndey bokk baay. citoyen laa comme citoyen yëpp ku ci nekk citoyen bu nekk day am xalaat ci réewam xëy na am naa suma xalaat ci réew mi xëy na. Euh, tam sama xalaat euh, méngoo naag wala méngoo ak yooyu yëpp amul solo li am solo daal mooy maa ngi ñaan sunu borom que réew daal euh, nañ ko xamee muy nekk ca kanam rek. bon campagne bi il faut dire que démb laa ñëw démb ci guddi laa ñëw donc déggoon naa gis naa yenn yi te ni ma ko gisee woon aussi defe naa ne peut-être nit ñi dañuy kii noonu rek mais du. dañu bañante daal dañu fexe daal bu bu ñu bañante daal bon ku ci nekk mun nga exprimer nag sa santiment boo d'accordul nga ne d'accorduma lii laa xalaat boo xalaatee lii aussi euh, ku ci nekk am nga sa xalaat daal mais ñu def ko ci jàmm li ñu xamee sunu réew daal man daal loolu lay ñaan li ñu xamee sunu réew mooy réewu teraanga réewu jàmm euh, et puis suñuy ndaw aussi ñu won leen ñun ñi nga xam ne ñooy mag ñu won leen yoon boo xam ne mooy yoonu jàmm waaw yoon boo xam ne parce que tey mun ngeen a xuloo mun ngeen a xeex mun ngeen def lu nekk euh, ci biir kër gi wante bu ngeen bu subaa itam ngeen juboowaat nekk ndey bokk ndey bokk baay